mbokk assalam asalaamaaleykum ni ngi len di nuyu di len ziar euh, di rafetlu tànn gi ngeen tànn rajo Thiès FM ëttu téeméer tomb juróom-benn kàddu gi bàyyi ci avenue Félix fet boigny mbokk yi yéen ngi déglu bànqaasu radio senegal fi ci diwaanu ciel ak li ko euh, donc muy radio bu ñu duppee Thiès FM 100.6 RTS. ñu ñew nak ak yéen ci sen émission tel quel atay jaa daw lepp ngi daw tranquille euh, technique ñu ànd Aïssatou Tamba donc di directrice rajo bi mi ngi ànd ñun ci réalisation bi. ñu ànd ak également Dadikoul mi nga xamante ni également mu ngi ci réalisation bi technique ñu ànd ak euh, Cécile Diane. ça dama doon bëgg woo directrice mu dalal suñu première invité ah, ah mu ñëw nuyoo tamit moom ay ah, Aïssatou Tamba. Euh, gan ngi ñu ngi koy euh, gërëm di ko nuyu di ko ne dalal jàmm ah ndax ñu woo la rek woote rek ñu wuyu la yombu boo nit ki mu bàyyi yitteem yëpp ñëw loolu vraiment dafa nekk loo xam ne dañu koy rafetlu. Euh, ndax ñëpp euh, xam nañ ne time is money bi maanaam kenn amatul jot. nit ñi dañuy daw rek. rawatina ci opérateur économique. voilà <laughs> kon nag euh, ñu yow tam ñu ngi lay remercier donc moom mooy mbokk yi ñu ñu ne waaw moom mooy suñu njiit donc dadi borom kër gi la borom kër gi dañ koy tàggu borom kër gi day ubbi mbir yi ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax. dadi. nekk tur goo xamante ni mun nañ nekk ne léegi fu mu toll nii ci diwaanu Thiès daal dafay résonné ci nopp yi ah euh, dañuy tàmm di wax kan mooy Baye Serigne mais damay wax Baye Serigne surtout tànk lay dooree Baye Serigne fan la juddoo. président Papis mhm. ñu ngi lay nuyu avant tout. di mhm. kontaan ci dalal bi ñu dalal ci sa euh, émission bi euh, di nuyu waa Thiès ak auditeurs yi ñuy déglu yëpp donc Thiès la juddoo. ban quartier. Euh, ñu ngi juddoo Cité Lamine. Cité Lamine mine hmm. un tout petit peu euh, déglu euh, ban Cité Lamine ah, ku xam Abdou Karim hmm. centre de santé nek Cité Lamine. Hmm. dem jëm ci école Cité Lamine donc ci ci que Cité Lamine mën nga c'est sa enfance nan nga passé. waaw xale xale xale bu léej xale bu bu doy waar xale bu doy waar parce que bu naan xale defe naa ni ba ngay judd la ba bi ngay am peut être 14 15 ans peut être -hmm, mhm. -hmm. donc euh, jaar jaar yi bari na cité lamine après y yu. donc da nga doon jéggi di dem ay cité sengor waaw waaw sama kër maam foofu sama fiefu maam la ah, daanaka benn tale dox seen diggante cité sen lamine ak cité sengor waaw sorewul sorewul waaw sorewul da nga lëjoon ci ban fànn lëj lëj lëj dëgër bopp waaw dëgër naa bopp bëgg naa xeex bëgg football xeexeeg noonu xeexkat nga woon bi nga nekk xeex waaw doon amoon naa xeex di wax dëgg yàlla xeex moom xeex moom doon naa ko def xeex moom doon naa ko def maa ngi fàttaliku xale daanaa def dama mënoon football nag suñu équipe hmm. koñ hmm. daanaa fàq bañ faa football dem beneen koñ su ko defee damay far ci équipe boobu ñëw dugal leen ñu hmm. xaar ñu xaar ma koñ ba taxaw ñoom ñëpp dagg ay yar xaar ma pour xeex ak man boobu ñaata nga am oh peut-être 7 8 9 10 ans. 10 mhm. waaw mooy match poto meew yooyu match yi daan def koñ ak koñ. di cotiser waaw dañ daan teg meew wala ñu teg mhm. dara ak waa koñu Ceyeen. Mhm. ak euh, fi gelawaar nekk koñ boobu dëgg. Eh, donc daan nañ football koñ ak koñ donc bu ma gars yi tooñee rek ma ma mer ma ni damay dem beneen koñ di football foofu. su ko defee du ma fu may football foofu laay footballee ñibbis ci koñ bi. donc bu nu amee match euh, gars yi am na match boo xam ne maa ngi fàttaliku bii bi ñu bi ñu gagné man maa ko dugal. mais gars yi dañu fàq dañu fàq ay yar di ma xaar. te tout tant daal premier yow daal benn Sadio Mané nga wala benn lan nga woon. oh bon. Ah, ah, fu nekk nii bu doon continuer na oh. football bi ban poste nga doon football. ben rôle bi Sadio Mané def laa doon laa doon def bu ma doon football. parce que ah. attaque attaquant laa woon donc. parce que da nga da nga am est-ce que bu ma doon football dama ko ko dàq football. <laughs> <laughs> donc en donc nga doon nga nga nga mënoon football. Euh, alors mën nga ñu raconter ay anecdote un peu si yooyu noonu. Euh, après football bi sax y' a eu la danse après dugg nañ ci affaire u fecc. Mhm. donc amoon nañ esprit associatif daan dugg ci ay association fu ñu ci toll nag dañ doon bëgg jiite ko créer benn affaire jiite loolu lu mu mësoon bëgg la. Mhm. donc euh, di organiser ay baal 15 jours baalu xale. jàpp rajo dañ daan jàpp rajo. su ma fàttalikoo temps xale dañuy baal et tout. Mm-hmm. donc yëfu yëfu xale la woon quoi. Mm-hmm. donc loolu dinañ koy fàttaliku. après dugg nañ doon. doon kañ génn ci football bi dem ci danse dañ doon def ñaar yëpp. maa ngi fàttali bi may football cadet Cité Senghor. am na si si am na match boo xam ni. gars yi sama buntu kër lañ ma jëlee pour ma demoon regroupement problème la parce que dañ doon dem Oscar des vacances Dakar. dañ doon fecci et tout c'était tout un problème pour ma dem entraînement y'a té amuñu ñun amuñu neuf buma buma mën donc da nga amone groupe euh, danse aussi voilà amone groupe danse temps xalé euh, dan dan fecc Oscar dan fecc ci xumbal yi ku ne xam na ni équipe nawatan bi mu amé ay xumbal mo daan am donc dan dan teud suñu kër sax dégg naan ñoo bay sëriñ pour pour genre c'est li moy foural quoi foural voilà waaw dañ dan teud suñu kër dégg ñu naan ñoom bay sëriñ ñoy waja dugg fecc té yalla xam na ni génnuma kër gi hmm donc dañu dan dañu dan xaar fu nekk manam donc star ngeen won quoi yene don star quoi vraiment lolu nekon nañ ko nek xalé bu ndaw quoi mhm. lolu lolu amoon na mhm. mango sacc mango def nañ ko mënon nañ togn amna suñu koñ ma ngi fàttaliku trasu pneu auto yi pneu yi fini jaar mhm. dañ nan taxaw di talal suñu tank ci ci tali bi tan boy di togn oto bu ñew dañuy talal suñu tank bañ ko topalé donc ba oto bi ñew bay jégué ñu lem suñu tank quoi ok Euh, yàlla dogal na un jour tey maa ngi fàttaliku paa bi dafa dem ba gaare ci kaw fàq yar bu gudd daal di gaare taxi fu sori wiiri man fi may toog nii rek sama catu sama catu bët laay seen benn yar buy ñëw te man maa doon jiite gars yi toujours lu ñuy def rek maa jiite donc yar bi dafay egsi rek man man moom yar bi dalu ma parce que dama gaawoon quoi mënoon daw yar bi ni muy dawee di ñëw man jóg naa bërët daw ba mu karawaase gars yi ñu daw donc mënoon mënoon nañ tooñ ay sabar aussi bu buñ fa nekkoon aussi buñ gisoon sabar ci koñ daanan ànd dem fekk ñaar ñu denn ñu takk leen fil de fer donc takk sabar gépp takk seen ah yére takk fil de fer Euh, daa leen ko def. Marque Polo. Euh, si Marque Polo amoon naa sama xarit bu ci aayoon trop. <laughs> nan la tudd moom. Mor Talla Diop mi ngi que en fait euh, donc ah, ngi ànd ak surtout mm. number one à Thiès muy mm. Thiès TV. Mm. ak Thiès Info donc ñu moom moo doon Marque Polo yaa ko wax de. wuu moom moom. xanaa buy aussi Malick Djité bi ngay gis den gi Malick Djité tamit taxoon na. Euh, fu ngente am ñun ñoo moo ñu ko doon wax ni dañ dem marqué ji polo quoi fii am na ngente ju dem. moo doon repéré. doon repéré affaire yi ñëw wax ko quoi. Mhm. donc euh, voilà. ok alors donc une jeunesse euh, boo xamante ni passé nga ko mhm. nekkoon en fait mun nañ wax xale bu turbulent quoi. waaw waaw mais nag ah. bon tout en étant peut être gëm ni jàng mi moom dañ ko prioriser woon quoi du mhm. nekkul woon lu caaxaanee donc faisait partie des meilleurs de notre classe. boobu yaa ngi euh, élémentaire primaire ak euh, ci élémentaire bi ci école Cité Lamine. après nag bon commencé nag bi ñu commencé léegi dañ ñu jël yóbbu ñu Kébémer. ah parce que suñu famille euh, mi ñu nekk Kébémer famille amu Anta Samb bu Kébémer. donc sama yaay après fa lañu yobu parce que fofu da ngay jàng alcorane par force da ngay dem tool après bon éducation bu doy waar fa amone mm-hmm. donc def naa fa deux ans fa laa defee sama CM2. ak sama sixième donc je me rappelle que bi may def sixième. Euh, bleu lan ma doon woowee bleu bleu j'étais trop petit dama gàttoon tuuti donc école bi maa ci gënoon tuuti ñi ma nekkaloon ñëpp danañ ay géant lan woon ci man ko mm-hmm. donc foofu laa jaaree. léjoon fa tamit xeex xeex rek xeex moo ma fa jële sax xeex ba daw dugg ci oto yi daw ñibbisi. Kébémer. Kébémer dama dugg ci oto yi ni dama doon ni ni ni damaa lang oto. waaw ngaay laa lange oto ñu indi ma ba Kébémer wa dal ba ma ma fi apprenti ba ma alors que dama doon daw pour ñibbisi <laughs> Thiès. dama doon daw pour ñibbisi. donc yooyu yëpp jaar nañ ci. Mm-hmm. Euh, mais boole woon nga ko ko école bi quand même. non école bi léegi bi nga jógee Kébémer ba léegi si sa si sa france waaw bi ma ñëwee tamit laa duggaat école fii sama yaay. xaar boobu dal nga tuuti wala dalaguloo. ñëw naa ñu delloo ma ma dawaat ñëwaat. Oscar de vacances man ngeen nan la un groupe bi nga xam ne moom ngeen amoon ci télé don don doon doon euh, doon taxawee am ban taxawaay la amoon ci ENSA mhm. waaw ban taxawaay la amoon ci Oscar de vacances jëloon ngeen ay ndam wala euh, bon ñun euh, avant Oscar il y avait Bonafide y avait des Oscars à Thiès mhm. ku xam salle des fêtes bu Thiès donc xam ni salle bu doon am ay manifestation la tout le temps mhm. y avait théâtre de verdure y avait la salle des fêtes boo xam ni vraiment tey dañ ko transformé nii changé ko mais fa la spectacle yëpp doon ame donc euh, fa lan daan nekk pendant cinq ans moi j'ai été meilleur danseur pendant cinq ans mhm. ak suñu group saa yu ñu bokkee ñu ñooy gagné grand yi nga bokkal groupe bi mën nga wax seen tur rappelé ko tuuti ñoom ñi ñi oh. seetaan grand yi ñi nu bokkal groupe tur ñi nu bokkaloon xam naa ni ñoom dam seen ak ñoom euh, ñoom euh, Modou Faye ñoo ñëpp ay suñuy concurrent lañu woon mhm. am na ñoo xam bàyyi am ñoo xam ci bi am na euh, ni nan Ablaye Ndiaye Ousmane Niang donc ay Khadim xam nga ñoom Moussa am na ñoo xam ne gendarme lañ léegi ñii ñi ngi pénitencier ku ci nekk mu ngi ci benn secteur di fa yëngu quoi mhm. mais euh, nekkoon na divertissement nekk sa xarit si tàngu xare ci sama gars yi bon y avait Ousmane ab et Ablaye Niaye ñooñu laa gënoon jege quoi da noon def trio quoi maanaam trio de choc lan amone dañ don fo dañ don gis ci mbedd mi kenn sax di dox ñu créer ci danse wala dara donc on s'amusait tellement que dañu dañu amone dañu amone fort ci ci ci ci alors beaucoup de beaucoup de personnes se sont rappelées après serait euh, Serigne image bi ñuy gën ñëk a mujjé am pratiquement ci danse moom mooy ben clip waa flash boo fecc voilà voilà mhm. on a fait on a fait wa flash on a fait Ndeye Seck signature mhm. aussi def nañ ko way woy euh, ñu wax Matar Sylla def ko ci ñu defee ko jam ñaajo ci guuy yi foofu donc clip wa Flash leen njëkk fecc té clip wa Flash bobu ya isa Diol dedans isa Diol a été notre manager voilà ancien animateur sëñ bi isa mhm. donc mom du won fecc mais def ni clip bi foog mu génn ci ñu créer ko benn fecc dañ ni ko bu ñu tëbee ba taxaw rek da ngay tëb ñëw taxaw ci digg bi xam nga pour feeñ donc donc suñu demee ci YouTube def euh, yoon wi mhm. wa Flash ñu xolé dinañ ñu liggéey bi xàmme ñu du yomb nag quoi mais dinañ xam ni ñun ñoo nekk ci clip boobu. ñoo nekk ci clip boobu. donc daanan fecc daanan foo on s'amusait euh, bëri woon nañ xeex et mais jàng mi aussi bokk ci woon. Mhm. ak tamit yëf yi euh, xale. daana tàmm tux daana tàmm def yi dul noonu. Mhm. mais amoon nañ group boo xam ni vraiment boo ci bëggee bokk boo dee tux sax dana naan la doo tux. Mhm. da ngay bàyyi tux pour bokk suñu group ok on se rappelle des temps ñu demoon côté Mouride Gueye ñu fecc fa benn euh, xumbal foofu. mu neex donc ay vedette la ñuy doon donc gars yu bëri ñi dañu bëgg bokk seen groupe Ensa dañ doon tux dañ doon dugg ci loolu ñu ne ñoo suñu groupe moom kuy tux doo ci bokk mm-hmm. kuy tux kuy def leneen mm-hmm. mënoo bokk suñu groupe donc tax nañu bëri

ak sama côté papa bëggoon na jàng mi trop gëmoon na ko trop euh, te lu luñ ci doon soññ la suñu yaay mosuñ cee bàyyi noonu yàlla euh, def na ni euh, lu nu loo xam ne daal ñoroon nañu trop la quoi man sentiruma fenn yoon foo xam ne amoon nañ pression fu ma dóoree woon damaa dóor doomu jàmbur wala ma xeexat nit ba gaañ ko wala dara ko man su ma fàttalikoo njàng mosuñu ma cee dóor mm-hmm.

la ñu waroon voyager euh, pour diir vous dire qu'en 99 def nañ Oscar des vacances année bi ñuy voyager def nañ Oscar des vacances ak euh, morceau Alioune Mbaye Nder bi muy wax nga jaaru jaaru jaaru muy gën a sedd. mooy jaaru bi. <laughs> yaay sama waaw mooy woonaa la bi woonaa la woonaa la. ñu ko pansement la. voilà pansement voilà. <laughs> kooku année bi muy génn. Aziz Sam moom la ñu jox Oscar. Mhm. def naa Oscar des vacances. en 1999. deuxième euh, deux semaines qui suit ci la voyage dem France am inscription yàlla def ma ma dem. donc yow France bi ngay dem. jàng moo la taxoon jàng moo ma parce que dama njëkk wut inscription aw ma donc euh, dama japon ni amna inscription déjà Bin sama sœur waxe mi may wutal et tout donc jàngeetuma sax fi mhm. mat PC la do suivre en 99. en 99 donc. Euh, alors nit ñi xalat ni yow Modou Modou moo la yóbbu foofu. non non non nekk tey da nga demoon d'abord dans un premier temps. pour non Et tu def na Modou Modou pendant 4 ans 5 ans 6 ans. transition boobu la bëgg. Euh, mhm. comme yow nga jëgé Sénégal pour dem France. Mhm. pour jangui bon nan nga def ba bon France pour jangui ah. inscrire donc on avait des contacts en Italie des amis et tout. donc gars yi waxtaan ñing wax ni y a ma sœur qui était mariée là-bas ñi fa doon gars ni ni et tout. alors que bon moment bobu xam nga di nga am inconscience quoi parce que tay bi ñuy bi ñuy xool maa ngi xalaat dem liggéey maa ngi xalaat am xaalis maa ngi xalaat Sénégal maa ngi xalaat déjà ñibbi si Sénégal non man commencé woon naa business avant may dem parce que doon naa jaay je me rappelle bien sama sœur da daan yónnee ma ko daan dem Dakar di ko jaay daan jaay ay linge de corps ñu bari fii doon naa leen jaay maa ngi fàttaliku ay magnétine mm-hmm. ay femmes yu bëggoon sol bëggoon man maa leen doon jaay affaire yu bari yu daan jógee France dama doon parce que sama sama sama sama yaay donc man bi ma ko xamee tey ak sama yëpp liggéey yëpp lan liggéey rek lan xam sama papa heure añ lan daan bokk ndab li ak guddi bu ñëwee tëdd na fajar boo yeewoo bu la yóbboo école dem na liggéeyi donc maire bi commerce da ko daan def depuis ñu nekk xale jaay ak jënd jaay ak jënd rek la la xam donc xam naa ni loolu dama jàpp ni ci moom lañ ko war a jëlee ndax bërki dem rek mi ngi ñuy tooñ naan li may def lépp laal ngeen ci parce que comme ñeneen ñi ñu ngi ci couture beeg yooyu mu ñuy tooñ ñun ñëpp naan <laughs> lim doon def ñun ñëpp ñu ngi ci laal quoi donc euh, sa yaay vraiment source d'inspiration, inspiration bu baax a baax euh, mel ni ku la tracel ay c'est si si si sa vie yaay ba ci yaayam parce que mm. tamit bu xolé famille bi nga dem xol sama ndijaay xol ay euh, tonton Fallou xam nan ko xam nga xool sama mam Awa et tout da ngay xam ni bon c'est la famille quoi c'est, c'est la famille donc foofu nga koy euh diggante bi ni bayyi nak euh, waxtaan tax ñu joggé France ni nan dem Italie euh, xooli Italie quoi lan moo fa am li ñuy wax ñu dem ñu ne nan xool ñu dem commencé dugg ci njaay bi ak jënd bi moment boobu nga teg jàng bi ma teg jàng bi foofu commencé dem wuti dem xooli loolu quoi bi ma xoolee xool euh, commerce bi commencé dox mhm. nag liggéey nag booy liggéey yaay géej say engagement quoi bi ma ñëwee gis moo di ñu xëy di liggéey di wàcc man ma bi may njëkk a fi ma njëkk a dal j'étais toute parce que sama goro laa ñëw mu yóbbu ma wutal ma dañ lay wutal kër goo dal donc kër gi nga dal provisoirement la y avait quelqu'un qui travaillait chaque matin emploi normal entreprise kooku entreprise la doon liggéeyee donc man ma toog benn fan laa fanaan ci kër gi ñaar commencé à wu xëy je suis sorti toute seule mhm. ci mbeddu Italie mi ngi wis ndox mi ngi am ma doxantu ñëw naa ba ci feu bi gis euh, benn boy di di di fomp di fomp oto oto yi ci feu yi rouge yi quoi mhm. ma xool xaw ma lu may def ma essayé ñëw ci wetam xool xool gis muy def loolu ma gis ot euh, euh, tubaab yi ni ni lay jànnee di la di di la sànni loxo boo jubee oto ñu sànni la loxo donc j'ai failli faire comme lui. Mhm. après ma tourné ndox mi bari mu taw ma wàcc ci métro bi. bi ma ma fekk benn sénégalais buy jaay ay parapluie foofu ma ñëw xool ko taxaw di ko xool rek muy jaay parapluie ma gis mu naan ombrello ombrello xam nga italien doo ko dégg. Mhm. mu jaay ñu koy jox ay 5 euros. ma gis xaalis muy encaissé ma ni waay rek ma daaw jël sama téléphone woo sama goro bi ni ko fu ñuy jaayee parapluie quoi mu ne ma noo mu expliqué ma fi ñu koy jaayee da bëgg a ma ne ko waaw mu ne ma boobu maa ngi yor cinquante mille lira daa ngi xaalis Italie lira la ma dem jël métro bi mu tegtal ma ma dem jënd parapluie dellusiwaat mu ngi naa ma mais yow bizarrement nan nga def ba ñu tektal la nga dem quoi parce que fi ku fi doga ñew ñëw mënuñu laa tegtal ba nga dem mais dem na ba fi chinois yi jaayé jënd fa ay parapluie ñew tek ko commencé tek ko ci wetu waji nak maa ngi ko tek ci wetu waji rek waa jël ay bagage am buux ko dem côté balé quoi ma taxaw rek bon maa ngi ko dégg mu doon wax progrès prégo prégo prégo man tay ma naan prégo prégo rek donc jaay parapluie yépp quoi bi duggu donc ñu daw ñu daw jëndat ñëwaat comme par hasard bi ma wàccee ngoon gi jaay naa xaalis deux cent cinquante neuf mille lire ma wàññi ba pare dem di téléphone ji di wax li ma jaay ak yooyu fi ma cabine téléphone bi ci kaw foofu laa bàyyi sama carte bi xaalis bi yëpp. fàtte sama carte consulaire ak yëpp fa laa ko fàtte. ma ñëwaat tubaab bi ni ma euh, moom gisuñu dara am na calpe bu ñu formé fële leen koy yóbbu quoi donc man dégguma italien bu baax. naa moom mi ngeen sama calpe jël nañ kii bi jël nañ xaalis bi yëpp ma topp ko ba xam adresse bi ñu wax dem fekk ma fa xaalis fekk ma ko dara c'est comme ça que j'ai repris. donc dem euh, benn instant ma dem beneen métro. mais moment boobu aussi tamit sa sa sa budget jeex na. waaw ah, dama woo dama woo sama gorobi. bi. Euh, ñu yónneewaat la xaalis mu jox mu yónnee ma mu jox ma xaalis ma jëndaat. ma ko mu jëndaat ma laat la ñu remercier de passage parce que moom lañ fekk Italie moo dalal ha, ah, moo ñu orienté woon yoon yi ñu tax ñu xam commerce bi biir Italie dëggantaan quoi. gëm loolu ñu gëm ko parce que mën na jàll quoi. Mm-hmm. boobu c'était pas dur en Italie parce que tey policier bi sax day solu ñëw ci yow. taxaw jënd dem metti wul quoi bobu événement wu berlusconi ñëwagul donc man ni ko may yor am parapluie dem benen métro parce que dama gennon fofu gis nit ñi bari bi may jëndi bi may jëndi parapluie ma ne naa dem repérer nga sa point de vente ma dem xoli wat fofu bayyi fama nekkon dem ah, fofu ah. ma dem fofu ndeke fofu mom policier dañ fay jappé mais dama yegg ci kaw gis sénégalais yor ay sac louis vuitton gucci affaire yoy ma gis euh, sénégalais bu jaay sac 150 ça 150 000 lire ça di 5 euros la doon jaay ben ma gis ko muñ takkal ko xaliss bari quoi dem ma ko mais grand sac yi fu muy quoi mu ne ma sénégalais ñoy ñooy xaar grossiste bi léegi mu ñew quoi grand bi ñew mu ne ma grossiste la ma ko ah bon mu ne ma ah, ok ma laaj ko fekk man jotna dajalé dajale tuuti ma grand bi léegi man dama bëgg 5 6 sac nga jox ma ma jaay quoi mais xaw lu xew ndekete fofu dàqante gu miti go xamné fa nek affaire góor mais comme temps bay mënon nga daw non ma dem jënd dal yu deugër mhm. sol préparé xam ni combat quoi. c'est comme ça qu'on a commencé après le ci moo di donc juste un mois un mois et demi man ma maa grossiste à un mois ou un mois et demi en Italie. juste après un mois. un mois un mois et demi dama ah, commencé jaay en gros. version xos wow. waaw version commencé avec les forces de l'ordre. un mois. un mois un mois et demi dama dem jëndi bagage en gros commencé à ko ma a jaay en gros pour nous jaay

mu la jàppee yóbbu la téye 12 heures de temps bindal l'expulsion. nous ni la don dans 15 jours tu sors du territoire tu tu sors du territoire national mhm. donc euh, bu nous la waxee tu sors du territoire national dans 15 jours italiens yi dañu dañu baaxoon foofu parce que dañu la doon jàpp jàppaat la jàppaat la jàppaat la jàppaat la dun la dun la dun la wax dara mais yooyu yëpp day figurer ci machine bi mën na feeñi feeñi feeñi ëllëg quoi moom la ñuy wax ay feuilles de via mhm. moom lañ lay bindal pour yow nga génn territoire bi mhm. donc on était tout le temps exposé à des risques. parce que jaay mi amo licence pour j'ai non seulement amo licence pour j'ai mais yaa ngi doon jaay ay saag yo xamni c'est des contrefaçons. contrefaçons des mhm. CD. des DVD yo xamni comme ñuy jaay CD yi fii et tout. Mhm. loolu lañ doon def euh, loolu lañ fekk Italie mais. italien yi est ce que amoon na solidarité entre les Sénégalais oui bien sûr oui euh, oui bien sûr des fois nga dig rek kenn mo bolé ki tax ñu japp seen kër bagage yi wala dara mais solidarité bi sénégalais ñoo doon grossiste yi mais sénégalais yooyu tubaab yi ñoo leen doon jaay italien ci bopam ñoy defar produit bi di ñuko jaay ñun ñukoy koy sénégalais suñu biir. donc solidarité bobu amon na jappalante amon na. ndax man xamna ni bu ma di calculer rek lima ma ci crédit doomu sénégalais buñ mako ko heure bi kenn waxatu ko. ok après nga def combien d'années fofu bon j'ai fait euh, ba 2010 mais jusqu'à 2000 2004 2005 man commencé na déjà ñëw Sénégal. Mhm.

c'est l'avènement de 50 Cent euh, xam hip hop bi dafa dox a commencé donc nous, jaay ay yére euh, bien la cabine nous côté bi ñu def exposé Nous donc Sénégalais yëpp ci man solo des fois da boîte de nuit sax avons mal, mi ngi nous da nga des pour Nous donc nous, dañ solo comme les Américains. donc en fin de compte dans les boîtes de nuit nous avons wax noir américain gars yi dañ leen doon dosé boo déggee tuuti anglais rek da nga doon dosé tubaab bi et tout. ñu jaay yëre yi ñu koy jaay bu baax. boutique bi doon dox donc benn jour police daf ma yee ay 3 heures du matin ma yeewu daw ñu ne ma ñëwal wuy si donc man ma tiit dafa lu nekk la. ndekete dañu toj sa magasin sàcc sàcc lépp quoi. Oh. parce que y avait des habits après j'ai après parfumerie aussi. parce que j'avais des parfums de marque. évalué à combien. voilà non non c'est beaucoup c'est beaucoup. c'est beaucoup li ci garaaw mooy fi ma doon footballé ji parce que dem inscrit du football Italie. dam mm-hmm. ci amoon benn collègue boo xam ni tey euh, dafay doon ñëw bëgg ma def assurance ma assuré boutique bi. donc papier yi daf ko defar jour bi ma ko war a signé guddi bi lan ñu lan ma lan ma sàcc c'est-à-dire su ma assuré woon dan ma doon fay. mais guddi bi guddi bi nga xam bu nu xëyee ci laa war a signé document yi. Mm-hmm. ci lan sàcc boutique bi après ma ma ma commencé waat. nga delluwaat zéro. associé ak benn tubaab ñu ubbiwaat prêt à porter bi donc euh, moment yooyu nag après ci laa dinaa commencé ubbi Sénégal. dara mm-hmm. parce que yàgg-yàgg Sénégal la quoi. Mm-hmm. nga ñëkk a ñëw bi euh, mm-hmm. donc ay. Euh, damay raconté dama lay raconté benn anecdote yow sax xam naa ne peut-être fàtte nga ko daji dama koy raconté benn anecdote boo xam ne fàtte ko ba mu njëkkee ñëw di ñëw di dem di ñëw daal investir dafa ne woon moom dafa bëgg képp ku nekk Thiès di yëngatu ci benn mbir. Euh, ñu seen la fu sori alors euh, temps yooyu ma doon def euh, talent banlieue ci RTS Dakar alors moom mu gis ma mu ne man gis naa sa émission bi quoi hein. mais bro gis naa sa émission bi et tout quoi ma ne koy mu ne ma mais dama bëggoon boo leen yeggee ba ay final wala yenn affaire yooyu nga nga woo ma téléphone. alors à ma grande surprise et jour boobu ma lay wax noonu ma dadi ñoo àndoon hein. ah dadi dadi va va se rappeler nga ñu woo la téléphone nga daan ne ma non non non ka am ko ma booleel ma dem alors mu ibbil ma magasin bi na ma tànnal lu la neex ma jël ensemble costume ak ay dal ak chemise moom laa yóbbu Dakar euh, présenté ko émission tel quel euh, émission talent banlieue mu wóor ma ni rek yow ah fàtte nga sax loolu parce que da ngaa yàgg dugg peut-être que que lépp lu jóge Thiès ne euh, donc. waaw dëgg la dëgg la Papis loolu dëgg la man moom wax dëgg yàlla. Mhm. loolu yaa ma koy rappelé. loolu fàtte nga man moom man xalaatuma ko woon benn yoon quoi ni jaar nañ ci loolu sax quoi. bi nga toogee di wax après lay toog di di quoi on se rappelle. Ah, ah, ah. vrai. on a fait le tour de quelques boutiques à Thiès. et juste après rek euh, bon euh, téléphone. alors euh, geste boobu duma ko mos a fàtte. parce que en fait nga ne ma man damaa bëggu Thiès euh, nekk euh, doomu Thiès yëpp nekk vraiment ci ci ci ci kaw. waaw loolu lan gëm moom lañ gëm ba léegi donc ci la ñuy dox. Hmm. parce que bon yow tamit ku ku la xam-xam ni aussi talent boobu talent banlieue boobu xam naa ni du banlieue boobu mais talent boobu dafa nekk ci yow tax nga bëgg ko def ci ñoom xëy na. Hmm. parce que dañuy xool.

c'est tout de suite et c'est maintenant comme tantôt euh, euh, merci Papis. Euh, merci Amin Tadjé nga donc <laughs> première question mhm. pourquoi mon modèle soit qui mhm. dëkk bi Mhm. non dafa ne surtout au moment où jeunes yaa ngi bëgg a def euh, inverse bi ko donc. jóge fii dem. Mhm. Euh, di jël sax ay gaal lépp ko waaw euh, ñun dañu dañu mës a gëm ñibbisi. c'est-à-dire dëkk bi moom liñ ci gëm mooy keneen mënu ko defar ku dul ñun ñu fi dëkk juddoo fi màggee fi yaroo fi ñun ñoo ko mën defar. bi ñuy dem tamit gëmuñu woon dem pour dem toogi dañuy dem jàngi dellusiwaat donc yàlla moo lay orienté orienté nu ci leneen. mais li nu nek loolu qui suñu xel musul jog fi d'ailleurs li nek fofu doon ñëw chaque 6 mois dañ doon fexé def Touba donc euh, li nu gëm mooy nous war a c'est te dëkk bi ñun ñoo ko war donc expérience bu ndaw duma wax kenn buñ toujours wax na

que ni wërsëg am na ci liggéey bi foofu am na ñu fay nekk wër liggéey ba sonn duñu am liggéey am ñoo xam ne tey wayuñu wayuñu bi ñu fiy jógee buñ fa eggee leneen dina leen orienté ci leneen ça veut ñu nekk ci foo wala ñu dem di baali am tubaab yi nu xam tubaab yoo xam ne caaxaan ak forog leen doon ay màgget la ñuy doon yow boo amul benn esprit bi boo demee ñooñu dinañ la emporter am na ñoo xam ne seen mbokk sax duñ leen bëgg man daja naat nit ci station foofu gis ko yërëm ko mu def tànku neen en plein hiver sedd guyu man waxtaan mo mooy xolofi set ma laaj ko foo dëkk mu wax ma wagu ñaay senegal jox ma numéro fum sen wa keur et tout ma taxaw wo wa keuram niko sen ben mbok la gis fi mi ngi deuk fi ñun dañ ko bëgg daggal biye man dama koy daggal biye mu ñibisi ay mbokam ni ni ñu gën dimbali ñu rek koku bayiko fofu soxla wuñ ko fi mhm. réponse bobu la am j'étais j'étais j'étais voilà quoi écœuré donc amna ño xamni mhm. tay bu nu gëmee ni dëkk ba la. dañuy nax seen bopp. mais nag je ne dirai jamais. de ne pas voyager parce qu'il faut voyager parce que ça vous permet d'apprendre dana leen fexe ngeen jàng lu bari. parce que xam nañ ne ñun ñu ngi suivre lu bari foofu pour suqali suñu dëkk pour développer suñu dëkk. donc dem baax na mais ku ciy dem na xama del si te dem bi tamit doo toog rek fixé woon da ngay dem da ngay nekk fii gëm ko boo ko bayul fii boo demee doo ko fa bay dem bi li nga bëgg a dem defi boo ko commencé wul fii doo ko fa def. la nga yaakaar doo ko fa fekk il faut nga commencé ñafe fii ci sa terroir bi nga gëm gëm te boo demee leer na di nga dellu so déjà balaa ngay dem amoon nga waaw fibre commerce commerce commerce beeg yëpp déjà balaa ngay dem léegi beneen laaju aminte bi moom mooy bi nga ñëwee da nga dañ gis ni dafa da nga investir ci mode ak ci restauration ak ci loisir nee na lax lan moo indi investissement boobu waaw investir ci mode euh, moom laay wax rek sama yaay couturière la may mën a xam nañ ko di xam ne ñaw la lay doon def ay défilé et tout donc lolu xeyna motax ñu jël ko ci mom sama sœur jaara samb maya boutique mom moko mom mom tamit ci mode la doon la doon évoluer dan ma yónnee ay yéré gambie la commencé ba bu nekké france di ko jaay makoy jaay donc lolu dem ba nek luma luma luma bëgg bëgg sol bëgg yéré yu baax et tout donc dëkk bi daf ko wara am nga xol tay mu manké won ci dëkk bi parce que tay boutique ko waxon da dem bir marché implanté woon koo waxoon loolu lay def mais man bi ma ñëwee dama ni bu ñu nee boutique dama ne leen non dañuy démarqué wu. Mm, ubbi ko ci ubbi ko ci biir dëkk bi. parce que déjà boo commencé. Mm. boo ko commencé def les gens vont te suivre. lu baax moom koo fi def boo bañuñ suivre ko da ngay nit ñi dañ koy suivre dañ koy def. Mm-hmm. donc bi nu ubbee dañ doon gis nit ñi di ñëw ni mu doon intéressé kilifa yi fi daan jóg naan non sonnoon nan dañ doon dem ba Dakar dañ doon nii dañ doon. ok restauration après voilà non lañ ci duggee doon def ay défilé de mode Dosso def nañ ay défilé Dakar parce qu'on avait un magasin à Dakar et à Thiès aussi. Euh, la restauration restauration on sait que. restauration de doon de si moom bu ñu wàccee jël euh, air Portugal wala dara wàcc Goudi guddi dëkk ci dëkk bi guddi. Mhm. Euh, vraiment dañ daan bu ñu bëggee lekk dañuy dem ci angle Serigne Fallou wala Mayga bu nekkoon wetu mairie pour lekk pain chocolat wala pain beurre. mooy pain yooyu ñu doon euh, ñu doon defar rek moom lañ daan lekk ñu am fu nu fu nu lekkee. ba pare ñu seetlu dañ daan toog suñu boutique bi on était en face d'un doon nekk si boutique bi dañ daan gis. da daan gis bul shawarma nii di feeñ. nga ñëw dem ci kees bi ñu ne la wàcc nan fekk wàcc nan xam nga lekk dafa doy waar. lekk booy gis nii ba pare ñu ne la wàcc nan jaayuñu donc yooyu yëpp dafa bokk ci yu nu yu nu ci dugal fippuloo ñu et on sait nettement que tamit luy créer emploi la c'est-à-dire day générer emploi yu bari du du benn moo koy liggéey restauration du ñaar du ñett du ñeent du dix personnes sax moo koy liggéey donc restauration bu bu tax ñu naan restauration donc yooyu bi ñu ko gisee ci dëkk bi gis ni tamit bon ñun côté boobu dañu ci dañu ci néewal tuuti daal ni restauration moom waruñ ci mën a du domaine bo xamni l'activité bu sénégalais yi wara a évoluer. Hmm. alors que tay bo démé ci restaurant yi fi nekkoon yépp suñu mbokk yi nga xamni ñu ngi fi nekk tay ñu japp ñay étranger lan amna na xam sax fi leen juddoo. Hmm. mais ñu japp na ni ñom rek ñoo mëna développer euh walum restauration et tout alors que au niveau interne. Hmm. waañ wi c'est les sénégalais service bi c'est les Sénégalais. le service c'est les Sénégalais. lépp Sénégalais def ah, donc ah. pourquoi pas ñu war ko mm-hmm. on a jamais fait de formation ah, on a jamais fait de de formation mais. Mm-hmm. Euh, liguer nañ ci outil def nañ ay livraison Italie jot nañ liggéey Italie jóge nañ fii bàyyi. liggéeyuñ ba fin bi ñu dem am fa liggéey liggéey fi di livrer ci ay restaurant yu mag. Mm-hmm. restaurant yu mag a mag mag sax xool et puis tok def étude nak don dan dem ci restaurant yi di xol ni muy doxee. mais du formation ben bo xamni ni. Ah. def nañ ko après léegi emploi emploi wu xalé yi tamit ak lan nga leen di conseiller parce que temps baa ngi ñu xoj. Ah. l' emploi oui bon emploi moom moom maanaam fii ku nek war na bay bay waram ci ci ci côté bobu hmm. c'est-à-dire ni gëm ni dañu wara créer ay ay emploi dañu wara créer lo xamni parce que dëkk bi dafa fees dell del del ak ak ak liggéey c'est-à-dire li ma gëmul. Hmm. ñu ne dëkk bi amul liggéey. wala dëkk bi mënuñu mënuñu fi créer gëwma ko mhm. man nekkul sama xel mhm. toujours dama naan bu yàlla defoon li fi nekk lépp mu jëlee ko fi ci lan xam ne am naa force mhm. parce que loo fi teg day dem lu luñ fi créer day jar yaa a même pas cinq ans amuloon moto Jakarta mais y a moto Jakarta ki roule te kooku bëggoon di ni mu xaroog yow ça veut dire mi ngi marche taxi yi dañ daan wax dafa bari et pourtant non parce que dëkk bi nan jàpp ne mi ngi màgg dëkk bi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dem te secteur d' activité yi nga fi gis yëpp yëpp yëpp ay sooxe. donc gars yi war nañ mën a toog di xalaat ba pare nag euh, nguur geeg ñeneen ak ñeneen organisme yi fi nekk dimbali jeunesse bi dimbali population bi nga xam ne dañu informel dimbali ñi nga xam ne jànguñu te bëgg nañ liggéey. amuñu idée bi amuñu xam-xam bi war di leen di war leen di tàggat ci tàggat ci loolu bu baax. safa dafa laaj ñu tàggat ñu bari ci création d' emploi ci liggéey. cest ay jox ay orientation parce que amna ñoo a orientation motax mënu pas les moyens. c'est pas jom gi orientation donc non, da ngay wax politique. oui oui c'est ça politique les politiques. alors est ce que da nga am ambition politique non ambition politique ñun ñi politique ñun ñu ngi politique parce que côté bi ñu jël di ko waar ngi koy gérer di ko ni mu développé te dañ koy yokk cest politique commencé nañ ko bu yàgg on avait un mouvement mouvement gëm sa mouvement d'action pour le développement gëm sa donc on l'a créé en 2010 yëngatu ci on peut un jour à ce que Baye Serigne soit candidat à la mairie de voilà de Thiès ou bon ça je suis pas encore sûr mais je sais que mais ça bonne voie hein. non lu ci waay di def ah. lu ci di def rek en tout cas yow da nga fi nekk pour waa Thiès voilà ñu liggéey rek Baye Serigne musique préférée pour yow lan la taf musique préférée Wow. bon je dirais musique si vous dites musique vous dites malak. non musique musique d'abord musique bon man musique yop la la la, chanteur préféré euh, chanteur préféré il mm, y a Youssou Ndour couleur préférée mauve ah mauve

ñi parce que beaucoup de gens ont peur. Mhm. beaucoup de gens veulent veulent investir mais danoo ragal danoo ragal parce que xalaat nañ ni nit ñi jubuñu xalaat nañ ni nit ñi duñ leen jàppale xalaat nañ ni autorité duñ leen jàppale bon am na ci benn côté oui benn côté non autorité yi am na ñoo xam ne dañ lay jàppale bu baax. di ñëw danañ xool xam ni lii tey. est aussi tamit ci mbirum kayit yi jafewul. amul non kayit yi jafewul jafewul jafewul yombul mais jafewul luurul trop. merci de le souhaiter bonne continuation. c'était le premier numéro de tel quel. on se donne rendez-vous très bientôt sur TSFM, FM Chess Info TS TV Sénégal également Info. merci à tous et à toutes dans quelques instants le journal. c'était tel quel avec Papis Diallo C'est la technique réalisation d'Adikou Koul. bonne continuation. merci beaucoup.